بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جعلنا بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتذكر صباح seen numéro 469 di leen ci bis bi xam ni moom la ñu génn waaye nag euh, di ñëw di wéel ak fi nu jamoon démb benn mbokk muy laaj mu mag la léegi lool waaye bi mu nekkee ndaw dañu laa gis tabaski bu jotee yàpp wi dinañ fexe ba denc ci loo xam ni dañ koy boole ci reeru tamxarit muy laaj loolu ndax dafa bokk ci eh, yi nga xam ne moom la lislaam recommandé déedéet bokku ci sax yooyu daa bokk ci aada yi nga xam ni bu njëkk moom la ñuy wax ci tamxarit naa yàpp daaw a ngi nii buñ koy lekk ndax dugg nañ ci at mu bees te bu ñu nee daaw mooy tabaski ci daaw la bokk ndax mooy weer yu mujj fiñ toll nii ci atum 1439 boobu yàpp jafe na lool te tabaski comme yàpp day bari ñu jël bopp yi ak wésam yeel yi ak lenn seel ci euh, faar yi euh, wékk ko nag ci waañ wi waaye buñ daa euh, togg saxaar si ak tàngoor yi ndax day wow koŋ wala dañ koy xooj bu ñu ko bëggee jëfandikoo lu yàgg soog koo mën a togg soog koo mën a jariñoo nga xam ni loola euh, léegi li ko xewwil mooy aada yu bari day mujjee xewwi ndax jamono weesu na foofu léegi ndax bu ñu koy garder mën nañ koo garder ci consulateur ak it jàpp jafeetul noonu comme ni mu yoon keroog euh, jamono yooyu ndax tamit ñu nii bu ñëwee. xar yooyu gën a sonn waaye tamxarit bu ñëwee ginaar yooyu gën a sonn rawatina nag su suñu mbokku ñangeen yi suñu mbokku mboojeen yi kon loolu aada la woon rek incha allah dina ñëw ci senegal ak aada gis nga aada am na aada yu baax nag ak aada yoo xam ni dafa bon dañ la waxal ñaar yëpp xoolal kal ni mu amee solo Serigne Saliou daana ko faral di wax. sëñ bi ñu koy nettali ci jamono julli gi rek naa Serigne Saliou nee am na fii ci Sénégal am na kër gu dëll goo xam ni ba muy firi lan mooy kër gu dëll gi bokk na ca nee lii di kal rek nga xam ni ginnaaw bul bokkee ay yenn maam yi bokk jenn diine ji muy Sénégal masurité bi yëpp jullit lañu ah bokk wenn làkk wi olof nga xam ni ku fi ñëw bëgg fee ne foog nga dégg ko wala nga dégg ca waaw ak yu bëree bëri bëri mu ne ak ah, xoole lii di kal rek lim mën a lijjante waaw ñëw foofu xamoo fa kenn waaye nga ne salaamaaleykum loolu san nga ni ah, mbooj laa san ñu ne ah laa ilaaha illallaah jox leen ko mu mu lekk sinon bu demee suñu der dina yàqukat mu ne xanaa da sant jaañ waay wala faal ñu ne yow kat bul wax dara yow kay moom daal moom ñëw nga ci seen kër yi boroom bëgg xeex ak ñu ne yow xanaa xamoon ne kii sab jaam la xanaa xamoon kii sab la wala kii lan la tukkulóor ak séeréer daje joolaal ak séeréer daje gis nga ko kon aada yooyu yu baax la waaye aada yële nag yu bari day dem ba jamono moo ko weesu ala kulli waaye booba nag nu ñii bi nekkee ndaw nga xam ne léeg-léeg bu ab gàtt bu ngan gi jeexeet yéen lu ngeen cee ñam xañ na tànk yi da ngeen koy wésam xam nga léegi tànk dañ koy sànni tànk yi xar yi dañ koy sànni bopp yi am na ñu koy defar ba léegi ndax bopp moom sànni ko yàq la su ko defee euh, yooyu jamono moo ko weesu léegi tànk ginaar bu njëkk nun nii euh, bu ñu musaa am gan wal wala ñu la demal jàppal ma ginaar gu xaw ma gële da ngay kontaan ñëpp da lay ñee ndax xam nañ ni tey jikkat bu ñu toggee añ ba jox gan bi ba ñee bu noppi yow tànk ginaar yi yaa ko moom ak ak bopp bi ndeysaan ndax yow yaa yow yow yaa dàqewoon ginaar gi ñu ñee la ci lool wat bi yëpp jamono léegi weesu na ko yu baree bari euh, boo leen joxee tànk ginaar léegi dañ koy seexlu duñ ko lekk waaye ni jamono doxe ci wàll googu lay noonu la jikko yu baax yi gën a wàññi ko mbokk yi mbañum rus wàññeeku bu baax a baax baax al ixlaas wàññeeku bu baax a baax lañ ca tegu mooy euh, waxoon nañ ci wàllu xutba yi waaye ñu dellusiwaat ci ñaari xutba yii rek ndax sëriñ Bay Mansour ayadahullah wa nasarahu bi muy wax keroog naa nañu bàyyi pom yi tëj baar yi bàyyi pom yi booba am na ñu fa toogal xam naa ni sol seeni jasineer seen mbaxana seen kurus jël wér du tijaan wala ñu di murit wala xaadir wala laayeen wala ñu nekk ay ay ay ay te bu ngoon di jot ñu dem fa sëñ bay doon wax naa ci euh, xutba ba nañu bàyyi pom yi booba programme nañ bu yàgg ah, waaw programme bu yàgg ndax jàpp nañ ni tabaski bu àndul ak dem féexal sa xol ci seen xol yooyu nga xëy loola ko mën a feexal jàpp nañ loolu mënu nekk aku kori waaw ak yeneen bis yëpp ay màggale ki gàmmu yëpp am nu ñu programme euh, caaxaan yooyu nga xam dañ koy def ak yeneen muy yàlla yi waaye kilifa li ko war mooy na digle rek na tere bu digle jotee ak bu tere jotee ak bu xam xamle jotee ak bu fàttali jotee kon la ko war def na ko waaye ki nga xam ni moom moo may ndigal loola loolu digganteem ak boroomam la subhaanahu wa taala ka jëfe ndigal la kookat tuyaa ba ja léegi moom lay ñeel alakul xaalin kon Euh, xutba suñu Moustapha ci masaalikul jinaan wax gi mu wax ni suñu Muntaxa nee na nañu jàngal ndaw ñi doom yépp alquran xam naa mu xam ni moom loolu mënul nekk mu neena bokk leneen lu waaye di jàngal sa doom ci alquran bokk bokk wallahi alquran nga xam ni bu ko sa doom tàmbalee bu ne baa siin miim bismi rek ñu jéggal ay waajuram buñ doon mbokkaale ñu wayfal mbugal ma xeesal mbugal loolu kenn amul payam pertement nekku ci waxuñu nag ndax yàlla ndax yàlla mooy euh, mbengeen yu bari dañuy am seen doom daaw mënagul a dem école donc waaye yéene ko daara ji de ko alxuraan de fos ñu ko fa yéene yóbbu ndax yaakaaruñ ci njëriñul àdduna moom ci ñoom daal mbir yi daal moom mbir yi tey tey rek yépp tey la ñu jox sëriñ daara bi duñ ko jox benn paal sax ndax lay naajee dem léeg la mu yóbbaale mburu du ñu ko sang du soli dàll léeg la mu doon xale boo xam ne sax euh, xale bu gën a ës ci kër ga lay doon xale bu mun ta wax yooyu rek lañ koy jox bu te laajee lu ëpp ñaar téeméer du ko am ah alxuraan dong alxuraan di téeméer doy na ci oustaz bi di téeméer lay fayee ko moom man koy damaa yaakaaroon ni wax nañ ko sama benn xarit indil ko xale ni ko daa bëgg nga jàngal ko mu leen ñeenti téeméer lay fayeeku ñu ne ko ah ci alxuraan mu leen waaw lan la woon ñu ne ko ah oustaz sàngam de ñaar téeméer la xuma téeméer nee na ma génne daal loola jox leen ni leen kon yóbbu leen ko foofa waaye fii ñeenti téeméer la xoolal loolu mbokk yi waaw waaw bëgg ñëpp jàngatul yow kon bëggoo sa doom nekk bokk ci imaan yi bokk ci ilimaan yi di atte ah di jàngale xam-xam hmm? wala da bëgg mu nekk ab ah ab joueur dangaa bëgg mu nekk ab politicien bu mën a wor mën a digge lu mënul bari xaalis da bëgg mu nekk jaaykatu dorog ah da ngaa bëgg mu nekk nangam nangam mbokk yi nañ moytu yooyu nañ moytu yooyu te bañ a mel ni ñangeen ba defoon doom ji dafa siburu walla di wàccu liggéey walla iyaasu billaah ñu ci yàlla musal ci ñépp ñaareel doom bi siburu mu ñëw rek ni yàlla maa ngi ñaan sama doom ji bu wéree siburu si dinaa ko yóbbu daari sañ gay jabar ji comme mbooñ la sant ne ko ah ah, ah, ah sañ gay ñoo ñu di jël waa mu ko ay noppi waaye man ah, dama koy nax rek dama bëgg mu wér mu ni day nax yàlla lu ma bëgg foofu mooy ñu baree bari ñu ngi dem di yóbbu seen doom ñuy jàng ca daara jaay hee euh, dañ ko fay dénkaan rek de bis bu ko bàyyi tubaab soxlaa bu ma nee dem rek ñu dem nag fere ci yóbbu ko foofa nag bàyyi tubaab bi téye ko rek ku ñëw rek euh, mu nga jàll ci ba ci cycle bu njëkk bi rek ba war a def antracisme rek boo ko amee yeneen ci topp yëpp doo ko am nag léegi fexe nañ ba mën ngaa lire français tardeel nañ la ci alxuraan ba ak ak ak njàngum diine ma léegi na mën ngaa liir ñoom seenu làkk te jëloo jëloo fa xam-xam léegi jàngatoo ah yow nga soo ko sos nag sa sa laneen alaakulaay waaye xañ nañ la rek ma diine moom ci wàllu xam-xam wax ñu xol rek a takku waaw xol a takku li tax xol a takku nag moo tax xol a mat a defar bu baaxee cër yi yëpp baax bu bonee cër yëpp bon waaw lii ñu ni bëgg a reyee ah, ah, ah, xawma nan daara daara daara modernisé maanaam bëgg a modernisé daara yi suñu mu si dafa wax lu am solo ci année quatre-vingt yi mu ni moderne mu ni lislaam kenn du ko modernisé waaye modernité ci boppam la ñuy islamisé waaw daara moderne bu ñu koy waxee yow kay ñëwal ci daaru kay ñu la daara jàngale terrain ba yaatu na lool def nañ fa lañ man nga lu ngeen bëgg ñu ne bëgg lañ fii benn R plus 4 ndax dañoo bëgg internat foofu nga tabax jox leen say caabi dem demaat ci jeneen daara laaj leen ah? waaye nag yow imposé nga ni déet man nangami classe moo fi am jàngalekat bi maa ko vérifié ba xam ndax mën naa jàngale mu indi ko muy jàngale foog ngeen jàngale français mbokk yar ba tuxu na dañuy toog ci kaw ci kaw baa ngi mbokk yi dañuy euh, kon njàngama de daal di wàññeeku day wëlbatu léegi nag nu muy mujj day mujj mel ne école française wallahi foofu lay mujj rek te am na ñu ko tàmbali fi ñu toll nii ay doomi soxna am ñu lànk li ñoom lii moom lu ñu ko def mukk soxlawuñu loolu mbokk yi kon mbokk yi euh, soxlawuñu euh, tajdiid waaye li ñu soxla mooy al islaamiya waxee dafa rabbaaniya waaye modernité bi ñu bi ñu ni imposé soxlawulu ko waaye modernité lan bëgg jël noonu nu islamisé ko wax bu am solo loolu la suñu soldoon wax waaw ndax dalul xel de mbokk yi till yu sàngoo deru bëy dugg ci bëy yi ni ay bëy lu muy di jéem a meem waaye boo xoolee su giseen tànk yi ni ñuy doxe nga xam ni ñii ay till lañu mbokk yi ay njiiti réew yoo xam ni Afrique ñu bëgg nga toog dañ la jàppale ba nga toog quatre-vingt pour cent yépp kuñ bëgg nga toog di nga toog kuñ bëgg a jóge fi bu seen pexee jubee di nga fi jógee am doole lool istimaar muy colonialiste système bi la ñu sensé léegi ñu ko sensé léegi toog fañ toog waaye nag di def la ñuy def rek guddeeg bëccëg sàmm nu yor di nu saytu di nu digal di nu tere fexe ba suñuy constitution ñoom lépp suñuy acte suñuy loi donte adapté lañu adapté seen réew ya mënut a dox fiit dinañ la koy imposé alakul xali te ñi ñu koy def bokk ci noonu lu bokk lépp nooy ànd dem Njaasaan nooy ànd dem euh, Tiwaawan nooy ànd dem Tuuba euh, fépp rek parce ko kon colonial bi système bi moom moo changé waaye jógu fi moo tax man ay jamono góor ga wax naan euh, indépendance kañ lay jeex ndax góor gi daa fekk avant indépendance fekk indépendance ba dund ci lu mat juróom euh, euh, jamono at jamonoy Senghor jamono Abdou Diouf mu ne kon lii kañ lay jeex ndax gis na ni lañ nekkoon bu njëkk loola moo gën a noppale kon mbokk yi war na noo xoolaat nii nu mel bu baax a baax njiitu réew yoo xam ne ñu naa njiitu réew sàngam day kon xam na ni góor jigéen la boo demee ci seen capital maire ba ci ñoom la bokk waaw dañuy ñëw di demander suñu réew yi imposé leen ñu signé ñu d'accord ci nañu nañ nañ ko égaliser xam ni ni ñuy walaabale ca jàkka ja boole fa góor ak jigéen lañuy walaabale ñoom it bu boobaa ñu man faa boole ñaari góor ñuy sëy moo tax jàkka yi nii ñu tàmbalee def baax na ci nañuy vérifier ñi ñëw nii ci koñ bi kat la dëkk benn locataire daa am daa am ñu ñuy maye daal lay jox ay tur na nga vérifier ba xam góor ak jigéen la na nga ba xam ndaw si ñuy maye est-ce que du boroom jëkkër na nga vérifier ba xam góor gii lay ñaan ndax est-ce que amul ëpp quatre femmes ak yu mel noonu ak yu mel noonu léegi ñun ñu ngi koy def fële ci suñu jàkk ya fële ci Ndakaaru yooyu nañ ko gën a yaatal bu baax fu ñu wees fu ñu foog mbir mi weesu na ko ci Euh, euh, euh, nit ñu nii séxatoo fi mu toll nii alayhi salaam waxal na ko wax na ko kat noonu na la tar la tarkabunna sunnana man kaana qablakum shibran bi shibri wa siraan bi siraan atta law ahadakum daxala xujra dabbin la daxaltum wa atta law anna ahadahum jaamaa imraatahu bi sarixin la faaltumuuhu hadis boo xam ne rawaahu Maalik bi sanadin saxiix wa asluhu inda muslim nee na xas ngeen a topp gaa yi leen fi jiitu ji leen mat jéego bu ñu teg ngeen teg ko xasa bu ñu teg sebra bu ñu teg ngeen teg ko ba bu ñu duggan ci paxu mbëtt ngeen dugg ca ba bu ñu deman ba di ànd ak seeni jigéen di sëy ci biti ni fànn luñ ko nëbb ngeen def ko àgg nañ fa mbokk yi àgg nañ fa tey njiit yu bare bare bari ñu ngi coppee ci gaa yooyu nga xam ne ñoom ñoonu colonisé woon ñëw saase nag système de colonial bi léegi beneen beneen système lañ ñu tege loxo lu fi pétrole bu génnee quatre-vingt pour cent yi ñu moom lu fi wurus noonu société yu mag yi suñu système de vie gis nga ko ala kulli xaal mbokk yi fu ñu jëm fu ñu jëm ah, nanu ragal yàlla topp àdduna ci xamoo kan ngay faatu de bàyyil say doom loo xam ni lii ñëw nga xam ni jëlal mu ràkkab euh, gii di gën a foncé muy réer gu mat sëkk gii ah nga xam ni na ci moo ciy gindi nit mooy al ilmul waadix mooy xam-xamul islaam rek moo mën a gindi nit ñi yóbbu leen sowi leen ci lii jub si mbokk yi waxtu wi jot na ko nu yem fii rek di saar ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa